le maire de la ville de Thiès, euh, mon frère et ami Talasila, je pense que Youssou en tant que directeur de cabinet de monsieur le maire c'est mon frère c'est mon vrai frère de relation Yagina. ma mère de doon lu yàgg dëgg la mu ne gëmul loolu lu yàgg te rafet mooy dëgg te mën a taala yàgg na rafet na donc nuyul ma ko lu bari bég naa ci cër bi ñu joxe mais bég naa tamit ci contribution ci lii nga xamante ni ñu nag ndaw ñi ñoo ko bokk je pense que le maire a montré que il a moom am na une haute idée de sa mission ñu ngi koy encouragé bu baax nous une fois encore la direction de l'emploi dirigée par notre frère Moudoufal est très bien représentée ici par mon jeune frère Djakate, hein? Mohamed du moins, rappeler à relations yu je remercier la direction de culture avec le maire Makumba Diouf de remercier la direction de la culture di nuyu bu association euh, taxaw Lamb ki leen jiite di la nga xamante ni moom euh, suñu xamee yàggul mais gis nañu Pastef bi mu am ci lii nga xamante ni ay nawleem ñoo ko ko dénk mu ciy def engagement bu am solo di saluer bu baax aussi la présence nga xamante ni lépp foofu la jógee muy fils muy association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal dama wax ni Bamba le point de l'histoire le fait historique ci moom la commencé mu nekk ku am Bamba parce que nit dugg ci dara mën nga di sax boo ne damay def promoteur damay teug lamb xeyna pour am ci dara même bu may jàppale mbër mais fils mom li leen tax a jóg rek mooy jàppale euh, ñi nga xamante ni ñoo di mbër yi donc ma lay encouragé bu baax di la euh, jaale sa dëj bi nga am di la wax nga nuyul ñu bu baax suñu góor googu sa wayjur vraiment partenariat bi c'est un partenariat bu ñu teg ci dëgg mais gëm ni aussi day dem ci kanam

te mu nekk lu nga xamante ne day jëriñ askan bi di remercier bu wax aussi le CRG de lutte nga xamante ni tey bu ñu teewlu woon mbir mi dina am lu mu manqué donc euh, yaakaar naa ni structure yëpp seen taxawaay rafet na may remercier bu baax aussi ma xam ne CRG lutte Fall si je pense bien di encourager bu baax ñi nga Il ñoo promoteur de lutte yi nga xamante ni de qui fii di góorgóorlu ci làmb jëm may nuyu aussi suma en tout cas ñu am relation yu Yag, muy Bekaï. Mbaye.

parce que kóllëre ak limu gëm ni li ñuy def lu am solo la je pense que ñi fi nek def animation yépp suñu ñaari jigéen ñi ñu leen di beral nuyo bu baax di beral nuyo magdan, daan xamante ni moom aussi ku wax Thiès di nga ko tudd job communicateur li nga fi wax yépp aussi générosité la rek moo tax bu ñu duggee ci waxtaan wi nak dama wax ni tay buma encourager bu baax toute la direction de l'ANAMO toutes les structures de l'ANAMO yi liggéey ci mbir mi nga pilotage le directeur des opérations Mamadou Sissé, moom moo ko def suivi comme il a dit il le fait avec beaucoup de cœur et je pense que c'est important et c'est loyal de sa part, avec toutes les coordonnées, toute la, coordination, la coordination de, la maison de l'outil de Tchanaba avec euh, Mamadou Diallo et Birania, à tous ceux qui sont là. Mais j'aimerais vraiment aussi saluer la présence des jeunes du, mouvement Gumsabop. Je ne le dis pas parce on est, on est... On ne dit pas parce que c'est politique. mais dañ koy wax parce que damay wax ni gëm sa bopp du du parti politique du mouvement sax citoyen gëm sa bopp esprit la rek esprit boobu ñu gëm bi ñuy dugg ci politique moom la ñu ñëw ànd ak yéen bëgg ko bokk ak yéen ginnaaw bi ñu président de la république sase am lu ñu dénk dama wax ni on n'a plus le droit à l'erreur mbër dama koy wax bëri du métier kooku wax nag d'abord loolu moo nekk premier wax bi nga xamante ni moo indi révolte bi mannequin dafa am jigéen ñu ñëw seet si ma ni ma ñun ay mannequin lañu dañu bëgg a def mannequinat ngeen jàppale ñu man leen mannequin du métier bi ma nee mannequin du métier tuuti audience bi yàqu mais dama wax ni nit ñi bu ñuy xale yi pour ñu jëriñ leen il ñu wax leen dëgg. dëgg sax mën na metti mais il faut ñu wax leen li am bépp lépp lu nga xamante ni da nga koy def te ci tarfatal ay di bu gàtt nga mën a tax dootoo ko def boo màggatee dootoo ko def boo feebaree dootoo ko def boo amee sa cër dara dara dara dara dara lu nga xamante ni rek am nga ci problème doo ko def loolu bëgg-bëgg la ñuy wax passion mais du métier mooy li nga xamante ni danga koy jàng man ko nga mëna a waat ni bu jamm rek day am mëna ko def bi may am fukki ak juroom ba bi may am juroom ben fukki ak té képp kuy dugg entraîner ba am doole taxaw di bëré ni man mbeur la ma ngi bëré bi nga yewu di dem bo yeewoo di entraîner wala nga yewu di dem bëré ci suba ba ngor jot xamoo ci sa avenir dara ndax am na lu day ne lu day ne tarfatala ay ni bu la arrivé rek daanaka kenn dootu la boole ci mbër bi ñu ñëwee seet suñu dañu leen wax ni leen mbër du métier loolu nag koo ko wax te mu ne man dama gëm ni mbër laay def day metti ñun la mais duñu la yam foofu rek dañ lay wutal métier ci la ñu jël avec fils fanweeri mbër formé leen ci sérigraphie tey ñooñu. lii ñu fi defar ci t-shirt am na ci ñi nga xamante ni ña ngi koy def di am as tuut jàpp nañu ñooñu même bu ñu bëriwul gaañuwul te li lay wan ni aussi bëri passion la mais nit dafay am métier ñi fi jaar ñëpp Landing Diamé nga xamante ni mooy icône lutte Sénégal bu ñu ko tuddee doomam mi ngi ci salle bi Youssou Diamé mais bi ñu ko tuddee moom sapeur pompier la woon. mais mënoon na wax ni rek man damay bëree daan sama doole bu ma daanee sama doole teral samay waajur ñu ni leen jàngi leen métier wax boobu nag boo dajee kuy politique te bëgg laa fexe rek mbooloo mi bari ñu tàcc ko du la ko wax mais ñun dañu gëm ni en tout lii ma dese ci ci àdduna bu may ci yëngu ci wàllu politique wax bu neex kese mënatuma ko wax ji nag du naqari dina teggu ci teggu mais ci deug lañ koy tek bu ma sañoon bu ngeen di tambalé la fay ñew di leen nuyu yeen ñepp di nuyu wa Thiès di jëm nuyu bi di ko teg ci meeru tala ci la ndax dekk bo dem rek buntu nga fa te buntu bo moy kilifa ga te loolu la yalla dogal ci mom man nak bima ñewé bima ñew amna luma doon xalaat ndax nonu la am du non mais nekkate nonu la ndaxte bu Pape Mamadou toogee daan dend ak El Hadj Malick Mbaye duggule ñoom ñaar ñu toog toogaay bii organiser nañ ko Ndakaaru organiser nañ ko à la TFM ci l'Oeil du Tigre Badji baal ma maa ngi lay nuyu. maa ngi ki nuyu maa walau nuyu kii tax ñuy wax làmb wala bokk lu bari ci lam bu ñu ko tuddee Thiès la mu di Sidi Diakhaté Sidi Diakhaté mu tax na li ñuy tëgg làmb Dakar ak li ñuy tëgg làmb Thiès soriwul ku baax ku dëkk Thiès Sidi Diakhaté tudde na la bis indi ko maa ngi bisu Bamba kontaan ndaxte boo dëkkee ci dëkk cim réew gis na réew may doxee nga jóg ni kat ñii li ñuy def dinaa xool naka laay taxaw ba taxawu ba ñu am avenir mën a am liggéey loolu ku am xel moo koy def ku bëgg sa réew moo koy def fonk say nawle moo koy def te lii nga xamante moom la waa FIS def da loo xam ne dafay yokk ndawu Sénégal la jeunesse yokku ndawu Sénégal boobu nag moo ci dugal El Hadj Malick Mbaye bu ko wóor ni lii ngeen di def jeunesse su Sénégal mënu ci am dara lu ci dugg ndaxte dafa am benn mission bu ko yëkkati mission bi ko yëkkati mi ngi jóge ci président de la république Macky Sall mission boobu mooy taxawu Sénégal taxawu la jeunesse sénégalaise El Hadj Malick yemale woo ko Thiès Dakar Diourbel. kaw la fépp foo xamante ne ndaw nga fa te war a a liggéey loo xam ne dina jariñ Sénégal di nga jóg di ci taxaw ma la ciy encouragé bu baax di la ci félicité xam ne moom la ci loolu fi ma la jëkkee xam ne ci wàllu culture nga fekk nit kuy woy nga fexe ba mu yegg yenn niveau yi ci wàllu communication laa tax a Youssou lu bari ci wàllu communication. bokk nga ci li tax mu évoluer ci évolution bu am solo loolu ci sama kanam la yóbbu ko Bercy yóbbu ko fu may fu muy waxee ne ñoom taxaw li muy wax nga xam ko balaa wax dara laaj la te tey jii c'est un ministre de la République loolu yaa ko liggéeyal alaaj maa ngi bëgg nga Sénégal bëgg nga ndaw bëgg nga yokkute ba pare fonk nga ki nga xamante ni mooy si biir président de la République man dama am mbégte dama am mbégte ndaxte damaa seetlu Malick Mbaye ana moom saa woo ko fekkee ci bërëb rek bërëb la boo xam ne jeunesse yi ña fa ndaw ñi mën nañ faa yokk mën nañ faa jàng lu leen jëriñ ëllëg. yàlla bu baax bu ñu mayee fekkee ak tal di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa di nuyu ñi fi toog ñëpp di jiital ci nuyoo bi suma frère suma xarit Maodo Malick Mbaye directeur général de l'ANAMO maa nuyu waa association taxawu làmb bu Thiès bi nga xam ni frère Ismaïla Mbaw moom moo ko jiite ak association bi yëpp maa ngi nuyu ñi nga xam ni partenaire technique lañu ànd ak ñun ci liggéey bi def ak ñun ay convention de partenariat bi xalaatu association fis jógee muy formation insertion des lutteurs du Sénégal di un lutteur un métier fépp fu mbër nekk rek ñu jéem a xool nu ñu la jàppalee ba nga am formation ba mën a am xëy tey ñu ànd ceeg ñun bëgg ànd ak ñun ci quatorze régions yëpp di ci jiital ANAMO mi nga xam ni c'est la maison de l'outil bi directeur général Maodo Malick Mbaye jiite ak ñi nga xam ni ñoom la fi àndal ñëpp ci équipe am ñu ngi fiy toog maa ngi nuyu la direction de l'emploi mi nga xam ni tamit suma frère Pape Modou Fall moom moo ko jiite ñoom it ñu ngi fii maa ngi nuyu waa direction de l'horticulture mi nga xam ni docteur Macoumba Diouf moo ko jiite ñu ngi fii maa ngi nuyu waa ministère de la culture e de la communication tey ñu yabal fii Anne Marie Faye mi nga xam ne mooy euh, bi nga xam ni moom la fii ministre de la culture Abdoulaye Diop teg euh, mi ngi fi toog di am kontaan nag ci teewaay bi di nuyu waa association FILS yëpp nag di nuyu Ibrahima Ly mi nga xam ne mooy sama secrétaire général mi ngi nii sama wet toog maa ngi nuyu Ibra Mbaye mi nga xam ni mooy trésorier waaw euh, sama papa Bekkaay Mbaye maa ngi nuyu Ibra nga xam ni mooy trésorier euh, école de mooy mooy trésorier association FIS bi ngi fii toog maa ngi nuyu Bëgg Fàllu mi nga xam ni mooy président comité d' organisation bu association FIS mi ngi fii toog maa ngi nuyu Amadou Cissé mi nga xam ne dafa am ñaari directeur des opérations de l'ANAM moom association FILS gis liggéey bi muy liggéey Maodo Malick mu nekk liggéey bu am solo ñu jël ko nommé ko président de formation exception. bu association FILS Je ngi nii ngi nuyu mi nga agent wu association FILS nommé ko tout ce qui est relation extérieure moo koy wax mi ngi toog maa ngi nuyu Mbaye Sall mi nga communication di sant yàlla euh, tamit ñu ngi fii toog ah, di sant yàlla parce que président Sidi Diakhaté ñu ngi lay nuyu yow ak euh, président CNG euh, Meyssa Ndiaye Assane Fall ñu ko fi euh, teewal ñu ngi fi toog ñu ngi sant yàlla bu baax si li nga wax ci Maodo dañ koy dëggal parce que ñun yàlla dafa def ñu nekkoon bitim réew def nañ fa fukki at ak juróom daan fa liggéey daan daan suñu doole mais bañ fay liggéey dañ daan liggéey sécurité garde corps rapproché balaa ñu ko defee agence bi nga xam ne moom lañ bëggoon liggéey dañu ne il formation professionnelle ndax nit lépp lu muy def rek dañ koo cee war a tàggat loolu noonu ñu tàggat ma ci tàggat ma ci ba yàlla def ma am liaas bi foofu mais dañu ne tukki jom la mais ma ne nag comme que làmb moo nekk sama rek boo juddoo Faas màggee Parcelles doo ko Bawol da ngay bëgg làmb ma ne bëgg naa dem sama réew jéem a xool nan lay jàppalee jeunesse bi yàlla def ko ñëw. Next promoteur de lutte commencé teg ay mbabat ci gox yëpp sama papa Ousmane Mouss mi ni ci wax yëpp deug la sama papa sama papa dénk ma ko fune bu ngeena ma fa ma dem ba say ko bëree bëri mo Sénégal lu bëri nañu bëri mais boy seet équipe bu ne ko amee sans deux juróomi minute ñu ci bëri ñu seet ñëpp ko ngeen bëri te mbër bu fekkee ni yu liggéeyul wu buñ ko encadré wu rek tay mëna dugg ci lolu motax ñu association bi tudd formation insertion des jeunes du Sénégal muy un lutteur un métier une initiative jàppale ma yëpp ba ñu am formation am insertion di ci sant yalla bu baax nak ndax lo gis rek début bi day metti mais yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak yërmandeem li ñu wax ci DG Maodo Malick koy dëggal ak wa ANAMO Maodo Malick Mbaye daf ñu recevoir ñu toog ak mom waxtaan ak mom ñu wax ko suñu projet xamal ko ni ñun li ñu mooy jàppale mbër yi ñu am formation am xëy jaay ñu nag mu nekk nit ku dëgg parce que nit ki lay dimbali parce que ñu mënoon nañoo toog bitim réew man kii ma delal responsable la à Dalifort mi ngeen liggéey ak ñi may àndal lépp mais bëgg leen a jàppale képp moo tax ñu bàyyi suñu lépp ànd ak yéen mais jaay ñu dafa toog ak ñun wax ñu li nga xam ni mooy dëgg nee ñu nag franchement dinaa leen ci gunge ndax li ngeen di def jaamu yàlla la li ngeen di jàppale ñu la mooy jàppale président de la république son excellence président Macky Sall moom moo njëkk formé parce que l'histoire retiendra mbër bu demee ba am attestation c'est grâce à Maodo Malick Mbaye moo njëkk formé mbër yi. Euh, asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam nuyoo bi. ma koy tàmbalee tey jii ci kii nga xam ni moom mooy monsieur Maodo Malick Mbaye moom mi nga xam ni tey jii moom la directeur de cabinet représentant le maire Talla Sylla la jëlaat cër yépp ni ko tey jii yow la lépp nekk sa loxo yi yaay Talla Talla mooy yow kon nag comme yàlla def na Maodo ñu ngi lay nuyu ci turu promoteur yi di la gërëmaat di la santaat di nuyu kii nga xam ni moom mooy Ameth Ndiaye mais di nuyu Cheikh Malick moom mi nga xam ne aussi moom mooy président wu supporters yi nekk fii yëpp daal maanaam di nuyu Khadim Sarr di nuyu Assane Fall boo demee nga ne euh, Marie Pierre ñu ngi koy gërëm di ko sant mais di la gërëm di la sant di gërëm aussi sa président Maysa Ndiaye di gërëm képp koo xam ne mi ngi nekk ci sa ginnaaw di waa Serge wu Thiès di gërëm l'ensemble des promoteurs ak managers yi nga xam ne ñu ngi fii mais surtout di gërëm nag délégation bu mag bi nga xam ni tamit moom moo jóge Dakar te ñëw fekk si fii ñoom gis ma ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo yor li nga xam ni moom mooy taxawu làmb liggéey bi yàggagul mais njariñ li bari na trop parce que contenu bi moom moo am solo idée bi ngeen ko defee avec désintéressement pour jàppale mbër yi rek. ak xol fa mu sosoo comme ni ko isma waxe legui ba fiñu egg ni nek na lo xamni lu am solo la kon Ismaïla ñi ngi lay gëreumat te buñu ñu ñi ngi lay gëreum c'est parce que ben lam du yomb du yow lañuy wax mais yow ak équipe bi nga xamni ño nek ci sa wet muy ay bonne volonté coordinateur bu melni Pambay tamit nek ci kanam aussi ñu koy wax ni bo démé waxal ñu képp ko xamni mi ngi nek ci biir mouvement bi rek ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla képp koo xam ni tey jii mi ngi fii muy lutteurs yi ñoom ñi nga xam ne aussi ñoom ñoom moom bis bi mais surtout di gërëm di sant képp koo xam ni ñëw nga fii di góor di jigéen di mag di ndaw ngeen baal ma man gërëmaat santaat ba tey suñu xarit Talla Sylla du maire de la ville moom mi nga xamni mom mo jël tay euh, disposition yu mag yi ci salle bi pour tek ko ci loxo association bi jàppale leen déglu leen ci njalbeen ga ba affaire bi tay egg fi mu jëlat Youssou Diop directeur de cabinet ñu ko bo démé nga taxawul ma fa ba affaire bi mën jaar ci yoon bi xalé yi démé ba bërkaati bi ñu ñëwaat waxtaan ak man rendre ma compte ci li nga xamni mom lañu dox ba toll fi ñu toll dama ne leen ci seen biir waxtaan daal dégg naa ci benn tour boo xam ne c'est la personne clé ci lii ngeen di def personne clé bi kan la mooy turu Maodo Malick Mbaye bii mooy génn le président de la République son excellence Macky Sall ne s'est pas trompé bi mu jëlee lii nga xam ni moom mooy la maison de l'ANAMO dénk la ko Maodo Malick nous, chaque fois que nous lay lire ci presse de par vos réalisations à travers les régions du Sénégal c'est comme beaucoup de doon qui di ko def ci doom bi ma bokkal ndey ak bàyyi wala nga defal ko frère ma bokkal ndey pour wër Sénégal qui fa implanter lépp pour vulgariser aussi ce que xam ni moom mooy gis président de la République maison de l'outil boobu bi ñu koy créer vide la woon mais ab affaire bala muy am sens yow mi ñu ko jox yow nga xam liñ la jox ba boo toogee ci fauteuil ba yaa koy wutal contenu tey ku nekk tey jii xam na lan mooy maison de l'outil xam na lan lay anamoo di signifier xam na lépp loo xam ni yaa ngi koy jariñal président de la tey jii damay wax bu réew mi calmé ba grève yenn bari amul ci chômeurs yi ba ñu baree bari defuñu yenn coow yi na nga xam ni participer nga au développement

mais man Maodo Malick maa leen di booleeg ñoo xam ne ñoo leen di jàngal métier mi ba fu mu yàqootee ngeen mën koo defar ñu leen ci fay xaalis ngeen yor métier te loolu defar lampe solaire yooyu mooy li ci gën a tuuti ci li leen di Maodo Malick di jàngal. waaw asalaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax di leen bal ak di am mbégte ak contentement tey nekk ak yéen fii. mën a échanger yéen ay parole yoo xamante ni day jóge ci ñun ñuy tàbbi ci di leen jaajëfal bu baax ci nekkin bi ngeen nekkin nag ñun fii waaw ci biir loolu tey damay wax en tant que président association ak wax léegi tax ñu créé lii ba tey jii toll fii amoon na bañ ko créé yàggul mën nañu ci ay ñeenti weer la toll waaye yàlla mi ngi dimbali teg ñu loxo ba ñu ànd ak ay mu ñu baax. ba lii mën a tey toll fi mu toll bi ci njëkk mooy ki nga xamante ni mooy El Hadj Djily ngi koy nuyu bu baax di ko sàggal di ko wax ajaaraama ndax tey lii bu demee tey ba toll fii du kenn yàlla jëmmal na tey lii bu demee tey ba am du kenn ku dul moom yàlla jëmmal na ànd seeg ñoo xamante ne aussi tamit ñu doy ñoo xam ne seen ñoo jàppale ci ndax def jàpp naa ne lii jaamu yàlla ndax. kaay ñu wutal la liggéey kaay ñu formé la wutal la métier dafa lay diplôme ba nit mën laa ràññee loolu ku koy def yaa ngi jàmm yàlla ñoo ànd seeg ñoo xamante ni ñi ngi tudd Bamba mu muy koo xamante ni mooy en fils moo jël lépp ne dama ci ànd kenn ku dul yéen association taxawu lamb Thiès ngir bëgg Thiès yëpp xam ne association ba am doole jur na Thiès bi jàppale lutteurs yi bi jàppale waa Thiès ci biir loolu ñu toog suñu biir néeg waxtaan ko ni ko war a ba yàlla def tey ñu génn ko si penc mi tey ñëpp yëg ne association bi am na waaye nag dañoo ni tey jii bu amee tamit aussi c'est grâce à Maodo Malick Mbaye nit ndax Thiès yaatu na lool bari na ay leader politique yi fi nekk lool waaye jox ma ma defaral la wala jox ma ma téyel la wala jox ma indil ma jàppale la loolu ku la ko defal desal lu ko dara te Maodo jàpp nga ci bis bi nag ba mu réussir te di nga xamante ni ay góor bu sëkkal te adduna bi dafa toll foo xamante ni bu fekkente ni kiy def ak ki dul def ñooy yem ñooy payoo kon jaratul ngay def dara Maodo da ngaa defe fee war a def muy ñii ku ñu dimbali yàlla fay la ndax doon na ñoo xamante ni ñu gëm seen bopp nañ te ñi bëgg aussi ci li ñuy nekk la te mbëri dafa metti te bëri du chaque jour la dina toll moment boo xamante ni tey. amaana do bëri mais bu fekkente ni dem nañ ba nga am partenariat ak Bamba te ñu war a mën a taxaw ni ngay nga nekk koo xamante ni yow yaay déjà na moom te mënoon nga yem ci loolu rek nga nekk carrément damay wàccaat ci biir jàppale waat leen ngir li ñu nekk mën a réussir kon donc yow war nga war nañ laa delloo ñu ko neenoo ak jaaraama merci beaucoup. muy nuyoo bu ñuy démarré ci le directeur général de l'ANAMO qui est un frère, un au maire de Thiès, qui est son ami de longue date. di nuyu képp ku jiite kuréel association yi mouvement yi fi muy kilifa yi fi teew am Ben nag benn sañ bi mesurant la profondeur des relations qui existent entre le DG de l'ANAMO et Hadj ak le maire de la ville Talla ma weñ loxoom tey comme fekk na ma fi man may directeur de cabinet du maire ma weñ loxoom ni ko yaay waxal maire tey li tax muy waxal maire man xam naa ko kon DG man damay dalal gan ñi rek mais xamal ni yow yaay dalal sa gan te yow yaay seen pare fi ma ko tek xam di nuyu suñu mag ju baax joo xam ni démb rek maa ngi koy tudd suma biiru parce que siddaat fa ñëw bu Youssou ñu toog di waxtaan mu may génneel ay photo ba génneel ma photo boo xam ni moom El Hadj Sidi Diakhaté ngénte bu yàgg la ma ne ko kii de moo ma yar man ak ma yar ndax je me rappelle coïncidence pour coïncidence El mi je me rappelle ay li may wax nag ay ñaar fukki at ci ginnaaw la daanañ ko fekk man ak Talla Sylla mu toog ci boutique bu Sidi Diakhaté bi nekk si Moussa ñu waxtaan ko tuuti dem booba ñu ngi ci suñu wër yi nekk opposition di def suñu yëf yooyu ñu daan def kon coïncidence bi def tay ñom ñaan ñu dajé fi te dem may waxtaane ki du hasard puisque le hasard n'existe pas ci sama gis-gis di nuy ñep képp ku fi teew di wax ni maire sank rek bi may waxtaan ak moom ci téléphone mi ngi am lu ko metti ci ñàkkateewam d'abord malade bu mu di tawam suivre depuis presque 10 jours nekkul Thiès mu subi subir opération mais aussi ay liguey mu don def Dakar mais mu wax ma ni mi di dalal wa association taxaw Thiès ak partenaire bi FILS ak mbooleem partenaire bu ñu àndal ak mbooleem kilifa bu ñu àndal tey jii fii ci salle des délibérations de la ville de Thiès salle bi nga xam ni les grandes décisions qui concernent la ville de Thiès fii lañ koy jël mu leen di nuyu doon di am mbégte di jaarale nuyoo bi ci isma mi nga xam ni xaritam la aussi di ko jàppale chaque fois que mu soxla ko ci liggéeyam

un lutteur un emploi je pense que vous le koy wax la problématique de l'emploi aujourd'hui qui touche tous les segments de notre société mais jàpp nañ ni lutteur bi citoyen la citoyen bi droit yi mu am il peut aspirer c'est pas très Il doit bi muy def emploi la ci moom maanaam mbër war na di liggéey administration la haute administration di qui ci fait foo maintenir ni citoyen war na commencer si monsieur le directeur général de l'ANAMO monsieur Maodo de madame la directrice du centre régional de la culture Marie-Thérèse monsieur le promoteur Sidi Diakhaté et tous les promoteurs présents monsieur le président de l'association FIS monsieur le président Taxawu Lambo Ismaïla Labo. Monsieur le président du régional des managers, Monsieur Khadim Sarr, et tout, Monsieur le maire, je m'excuse, donc nous allons le Monsieur le maire de la ville nous le dit surtout madame l'inspectrice régionale des sports nous avons dit que nous avons nous empêchement monsieur le président bi nga région comme ni ma ko wax rek ci français bi mooy ni euh, ñu ngi gërëm association fils muy formation insertion lutte au Sénégal di leen wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen wax ni fi ngeen ñëw ci Sénégal la fi ngeen ñëw war ngeen fee ñëw ndax am na ay lutteurs yu am bëgg-bëgg am na ay lutteurs yu am jom yu fi nekk kon soo leen ñëwee fii vraiment ñu leen dalal bu baax. di wax ni tamit ñu ngi sàggal bu baax di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo dox diggante bi ba moo tax muy que muy le président de l' association ana taxawu làmb ak ñamu àndal ndax président bi rek mënul dara waaye su ma jiitee Islam mooy la mbaw yu bàyyi na ñëpp bi loolu amee tamit comme ni ko Bamba yi bi coordinateur bi waxee suñu defoon loolu ba pare doyul waaye du ñu am kuñ ci àndal ndax ñoom yàlla déggu leen ni am nañu koom waaye am nañu te tamit euh, am nañu fi suñu borom teg ñoo xam ne tey jii nii kilifa yi réew ñoo leen fa teg ngir jàppale xale yi su ñu demee si ñoom ñu mel ni le directeur de la général de la moom jàppale leen si kon dañuy wax ne ba tey rek continuité la rek parce que ku nekk soo fa jaaree fa nga war a jaar di nga gis buntu ubbeeku te soo ko duggee gis fa njëriñ mooy li nga xam ne tey monsieur le maire defal na leen ko fii si salle de libération bi ndax su ko defee tey jii nii monsieur le gouverneur de la région da ko defal su ko defee tamit euh, madame l'inspectrice euh, de l'inspectrice générale des sports la ko defal. kon ñu leen ci sant bu baax di leen si ñaanal te di leen wax ni vraiment taxaw nañu taxawaay boo xam ni si CRG bu Thiès mooy lii nga xam ni commencé nañ ko fi foo leen ci bëggee këyit boo leen soxla loo xam ne dafa jëm ci lu jëm ci wàllu mbër bi incha allahu rabbi ñu ñu wax ni bulletin de naissance soo koy wut da ngay dem mairie waaye suñu nee bulletin de naissance soo koy wut da dem CNG wala nga dem CRG soo leen ñëwee suñu incha allahu rabbi dina leen jox nit kan la ak fu mu ak nan la mel ndax lan moo war ci parce que nit ki tamit soo koy bëgg dimbali da koy wax nit ki nan la mel d'abord parce que nit ñun yàlla daf ñoo dimbali si nit la ñuy liggéey kon war nañoo xam nit ki ñu booleel ak ki ñu waaj a booleel kan kooku kan la loolu mooy taxawaayu CRG bi te duñ ci jógee ndax moo tax man leen man mi nga xam ne maa fi représenté CRG bi incha allah te man maa fi nekk tous les nga xam ni waa FIS après dañ ko ne liggéey bi waa taxawu làmb liggéey bi allah rabbi lépp lu si war ko def ndax euh, vraiment temps bi dem na bu baax di leen gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla si yàlla def jàmm ci bis bi nga xam ni moom la ñu nekk nii jërëjëf